naa bu bëggee ci làmb ji barke yow mbal xiyaam la ko baar ku yëg da ngay ñàkk. dama koy fourrière rek lan man <laughs> eh, du doy du doy tey du doy ah? barka oh du doy. waaw jàppale doomu ndey Baama Dieng Junior. Uh-huh. di ko ñaanal yàlla may ko ndam ndam lu guy ñu. amiin jàpp daan ñibbi rek. Ah. rek incha allah rek. ndax kan nga xam ne ñu si kawam gaan. ñoo ko gën a liggéey. laa gis nii mais lan ngeen indi lan ngeen indi tey ci combat bi. ndam rek ndam rek. Eh, xoolal ma raag googu. affaire bi alliance la alliance biram la. alliance bi nga gis noonu mi ngi dem yaa ngi gis góor ak jigéen mag ak ndaw ñoom ñëpp le 19 juin. arène nationale waaye Modou li may gis mooy ay jeunes yu déterminé ay jeunes yu nga xamante ne dañu ñëw ci làmb yi seen i t-shirt mu rafet lool Modou Khoule nga gis ni xale yi léegi conscient nañ xale yi ñëw ñu stade. <laughs> alliance la. yéen yéen def leen dàgg euh, biram moo karay bëri. caatu du ko may dara leen defal lu xooteeku. caatu ngéwél amul lu muy maye. Ah. taxaw dañ ko fay fekk jàpp ko duma ko. amul lu muy maye alliance la. def ko war ko fekk ko yëf. alliance la. yéen yéen leen dàgg euh, biram moo karay bëri. ñu ñëw stade xulle ak ambiance bu neex xulle nee naa la c'est le l'espoir c'est ça l'espoir la jeunesse du ko may dara leen defal lu xooteeku Caatu Ngéwél amu lu muy maye ah. fu mu taxaw dañ ko fay fekk jàpp ko duma ko amul maye alliance la dañ koy fekk ba yëf yëf lañ koy fekk xoolal def lañ ko war def ci kaw tribune yi xale yaa ngi yuuxu Tyson 2 mu mel ni ki a gis ni dafa ñëw ak confiance mu mel ni ki ma gis ni dafa ñëw waa Ndayane yëpp ko waaye waa Pikine tamit yëpp ko ñu gis open press bi nga xamante ni moom la def keroog am na seen daal di ñëw ñu daal di yëngal Ndayane mais kii gis yar naa la tey naka ngeen indee Tyson 2. waaw maa ngi lay nuyu bu baax a baax. ñëwee nañ ko indi nañ comme ni ñu ko doon indee. tey ku Pape Sarr dekk sa wet rek. Uh-huh. waratoo am dara looy tiit. dëgg kon nag ñu ngi ñaan yàlla yàlla nañu yàlla may ndam parce que tey lii du guleet dañoo dugg parcelle daan fa ñetti mbër ñu ngi ñaan tey yàlla deux la ñu gis noonu deux la ñu gis noonu la ñu gis mais Tyson 2 mbër Gomis Gomis ak forme Gomis ànd ak ay mbokk am Modou waaye Franc il m'aspire confiance Franc bi ma gis Franc bi ma gis confiance indaale Modou Modou Franc ngi noonu am na lu ñu koy sottil ci loxo yi Modou Franc bi ma gis confiance indaale Modou ki ma gis nii mu ñëw Modou li ma gis lépp ci nga xamante ni moo di xarfa xuufa ma ngay sotteekoo benn bu tey kiran bu am ay saafara ci biir. li ma gis nii c'est de l'ambiance. Gomis c'est ça Gomis gis nga xale yi waa parcelle te dañoo takku dañu pare ne nañ tey. gomis waaye combat bii nga xamante ni moo bëgg am gomis combat Hippo ak ki nga xamante ni moo di Feugueux 2 gomis jalal ma jëlal ma supporters arène nationale ci diggante ki nga xamante ni moo di Franc ak Tyson 2 papa. waaw Franc Tyson 2. c'est l'expérience face à la jeunesse. Tyson 2 yàgg na ci làmb ji xale la nag magantewuñu dara waaye moo jiitu kon Franc bu rampé ba ñooy egsi il a marqué ses empreintes dootul fay ci àddina. ñu ni Franck mbëru njaago bi dëkk Grand Yoff moom ñëw na ci làmb bokk na ci làmb ni ñoom Grand Toro bokk woon ci làmb yaa ay njaago yàgg nañu gérer làmb ci mbapat ci gox ci lépp tey bu ñoom buñ leen boolee làmb ñëw boole leen nii Franc dem la bëgg jël place Tyson 2 dem Tyson 2 ni ko doo jël dama la may chance ndax li ma dajal dajewloog ñoom te dama bëgg nu ma fekki jee sa mag yi ci kaw kon euh, du yomb nii rek la mën a mel mais ki ñu tuddee drapeau bi mooy affaire bi. El Hadj Pape Ibrahima Dieng un grand sportif. tey boo ñu doon wax ci moom dara lan lay doon moom. non kooku kooku doomu Ndakaaru la ba pare dënn bi yaatu macha allah. geeño jéppiwu ko men jéppiwu ko wóllëre jéppiwu ko dëkkandoo jéppiwu ko ñu mu daan àndal ci xale ba nekk mag moom ñoom la ba tey ba pare bul bul bul am xel ñaar ci moom foo ko gis loo mën di xalaat ci lu baax lay nag laa <laughs> ilaha illallah moo du lamb suñu cosaan comme ni ko Babacar di waxee sama mag jooju nga xamante ni direct bi boo ko géré tey nee na lamb c'est le sport de chez nous ay njuug ba njuug ba njuug ba ah farangay eh, la ilaha illallah tey njaago bi dafa ñëw ak confiance xule sama kabar na baadu mag doomu tey Wally Seck li may gis nii moo di Franc il est très confiant l'enfant chéri des Parcelles Assainies la Ndiago ma ne ko Ndiago door bur be bul prononcé del wax Ndiago or ay ay ay ay jéego bi c'est ça la lutte sénégalaise c'est ça la lutte sénégalaise Modou <laughs> njaago bi il est ñaaxo du jeex waaye daa fekk mënuñu ndax tey sa néew bi ma gis mi ngi en forme ànd ak Eumeu Sène ànd ak ay mbokkam ànd ak ay xaritam Amadou nee naa la la lutte ñaari xale yi di bëre mi na leen Ippo ak Faga 2 ah eh, Ippo Faga 2 ñu waxante lu am solo ah. Eh, Modou dama yàgg suivre bu Modou ku sa mag booy moo daan kan ñu ne Siteu moo kan Tidiane Faye eh ñaari xale door nañ ña raak ña ngay raak Modou dal ma ngay tëkkër naase waaye Modou. xale yi seen taxawaay xale yi adré eh, eh. eh mbay door de gauche door droite door de bagaar baa baax door gauche jàppante nañu jàppante nañu jàppante nañu sol na ko sol na ko eh ba rokkas eh ba rokkas jàpp na gembu ku nekk am na gembu caale xale yi jàppante nañu waxoon nañu ba ko eh, rukkoo na de appui ba ngay door gos ooy sokkas na ko door na gos jàpp na waaye mbër bi taxaw na eh, xale yi entraîné nañu waxoon na ma ne woon na ma Abdou ma ne ko mu ne ma combat bi di yóbbu di Ippo jàpp ku nekk ci ñoom ñaar am nga gémbu jàpp loxo ci <laughs> eh, rokos rokos ñaari xale yaa ngay bëre ña ngay jàppante nañu la police gàcce garab yéen a ngi def liggéey ba solo eh fàqat na ko fàqat na ko trois appuis la def ñoom ñaar ñëpp ku nekk sa ñaari bët yoo mi ngi ci suuf. Modou la vie c'est sport waaye ba bëggee ambiance nee naa la fii rek nga ko mën a gisee arène nationale drapeau sa gisee nee naa la galax bu mag boobu nga xamante ci kanam tuuti ah, jàpp na. jàpp na waaye mbër mbër da ngay entraîné waay Rokas. ñu gis nga bëre combat bu rëy am ci ndam naka nga waaje combat bi. waaye waaye damay sant yàlla rek mënuma dara. taalibe laa ndongo laa xam nga waaw maa gën tuuti ci école de lutte su ma jógee ñëpp topp ma kon damay sant yàlla rek waaw làmb ji dama ci daj ay coono ñu santel may adversaire ma ña ma am plus de quatre adversaires xaw ma cinq ñu bëriwul ma jël kii. lan moo lan moo waral loolu adversaire ñaa ñemewul. la man mais tamit damay sant yàlla rek mënuma dara yàlla rek a mën damay sant yàlla tey di julliwaat si yonent bi di sant Serigne Touba di jaajëfal xam nga maam Cheikh Ibrahima Fall ay Baay lan di sant tamit taalibe Cheikh yi kilifa xoolal kilifa diine yëpp maa ngi leen di sant barke yàlla maa ngi sant xoolal ñëpp Sénégal di fi ñaan jàmm di ñaan tamit sama patron Sadiès dimanche bii du ñëw moo aaye yàlla na daan samedi yàlla na daan Moussa Ndoye jëli bu réew ma daan booy di tamit di sant tamit madame la maire madame la ministre de la commerce madame la ministre de la commerce jàpp na ci bu baax lépp moom la di sant tamit autorités yi nekk Kër Massar ñëpp bàyyiwuma kenn maa ngi sant yàlla di sant tamit xoolal këñ bi may fi may yeewoo am dalaa deux di sant waa Maris waa Maris di nuyu tamit séeréer sëpp waa Daaru Misel waa Kër Massar ñëpp maa ngi sant tamit waa Maris bu baax a baax a baax Maris Dalifor tamit di woor waa Massala Jesel ñëpp maa ngi leen di. Baye mi ngi leen di wax li làmb nangu ak li làmb bañ. Mady ak Sakal ak Sakal 2 ñaari xale yaa noonu ñaari xale yaa ñaari xale yaa ngi noonu arbitre soufflé na ña ngay lewtoo Gomis xale yi ñemente na ña ngay lewtoo ku ci nekk ci ñoom pied gauche nga jiital a ah, Ndiago yaa sama ginnaaw rëkk nañ junjun ji a jog soogoonte doorante nañ ma ngi rokos ay Gomis ma ngay rokos Gomis trop constant xëy na gis Gomis jàpp na loxo ba Malick Thiakal jàpp na jàpp na gebu ba ba wër gebu ba ngay rokkos sama xel dem lu loo ma ngay rokkos jàpp na ah ah yëngati loxo dara loxo suuf combat ba la ilaha illallah ayi gone yoo a bëre ayi la gone yoo mën a bëre eh, bu laabu jëm meloon nii eh, benn supporter du tardé du guddee Gomis boo daanoo da ngay weet Gomis Gomis boo daanoo nee naa la tuyoo sel ci Gomis ko toogee wax ak moom nee ko di nga bëree du noonu eh, eh, Gomis Gomis Gomis victoire neex na waaye defet defet day defaraat mbër jugal say boo ko jël si nañ la <sighs> sonn naa de xarit na seen diggante ñaari xale yi da ngay lewtoo Modou ñaari xale yi ñu ngay lewtoo Modou Diamalaye càkkoos na Diamalaye cokkaas na Diamalaye cokkaas na lewta baa ngay diib des fois bu bar Petit Avion cokkaas na ah Diamalaye Diamalaye door na door bi dugul Petit Avion sigi na Petit Avion door na gauche door droite Diamalaye taxaw na Diamalaye mi ngi ci ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk ku ci nekk pied gauche nga jiital Modou waaw door door na gauche droite ba ay Modou Diamalaye ngay door a ah, Modou a ah, bi ne ko a ah, jaari xale yaa ngay bëre Modou bu kam a songu na ko jël bati avion bati avion Diamalaye bati avion Diamalaye takk na ko takk bati avion daal na Diamalaye bati avion ma ko bati avion ne woon na ma bu arbitre bi soufflé bati avion ngay ñuuk ay Modou doomu Parcelles bi de Rock Énergie la nekk jàmmalaay ay jàmmalaay jaaxle na ani ay mbokkam nee naa la boo daanee da ngay weet boo daanoo da ngay weet petit avion nga ñuk dem ci ay mbokkam petit avion door na ko duma na ko daan na ko ay Modou bi ko combat xale yi waxoon nañu ko. Euh, petit avion mu waxoon ma ci face à face bu ne ma Abdou ma ne ko naam mu ni ma kii maa ko dàq bëre fukki yoon ak juróom tey nga ñëw bëreeg moom duma ko daan ko. waaye gis nga waxoon naa la ko. waaw def naa ko. nee naa ko yow man maa la gën a xale. waaw dama la koy woon nag. te waxoon nga ko li nga mbapat mbapatu ko. xam na ko xam na ko waxuma la ne kii xam na bu baax a baax. Ah, léegi fan nga teg sa bët. ah ci grand combat yi rek. Ah. ci ñoom Yékini fi ñu jaar foofu laay jaar foofu laa bëgg jaar. incha allah ñoom roi des arènes. dama a téye sama loxo bi jaar naa la bu baax a baax grand bu baax a loo doon wax. waaw non Gomis maa ngi maa ngi toog pour mu jël fii moom mu dem di cadre rek. guddi guddi ndaayaan. lamba ngi nii Gomis. arène nationale. waa ndaayaan. lii moo lay wan ne. Uh-huh. ah waa ndaayaan ak waa Pikine daal. Uh-huh. daa mel ni tey pare nañu. Babacar ma gis nda ma gis open presse ndaa yaan ki nga xamante ni moo di Eumeu Sène daal di ñëw soutenir ki nga xamante moo di Tyson 2 parce que lu mu dugg Tyson 2 dugg ci uh-huh. Eumeu Sène nee ma bërki démb uh-huh. Tyson 2 taaw man la ko tuddee uh-huh. fekk na ko ndaayaan mu def open press tey bu ñëwee arène nationale moo daa def li ko war daa delloo Babacar ñu gis beneen xar kanam ci làmb xale yi ñëw tey ànd ak xale yi ñëw ti luñ benn violence Babacar waaw loolu lu rafet la soxla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 bu bëggee ci làmb ji barke yow mbal xiyaam la ko baar ku yëg da ngay ñàkk